moo koy waxee ci làmmiñam wala mu digle ñu def ko mbirum boppam la kon nee na moytu kenn koy wax ci turu yooyu ku ko defati ko ne ne ñëpp xam ne woyatoo ci ndigalam bokkoo ca ak njabootam ñàkk tënku ci njàngalee lislaam ne ko Sëriñ Tuubaa digle sos fi jàkka wala jàngukaay ci lu dul ndigal kuréel gi sëriñ bi di teg loolu ci seen loxo mu ngi diggale képp ko fi yor ab jàngukaay mu tënk mu tënku ci li ñu tëral ci wàll googu.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 ndax sëriñ bi wax ne da ko tànn ngir bëgg ci ubbi jumaay Masaalikul Jinaan ji loolu nag dafa wax ne day liggéey bu rëy ndax nee na li tax mu tànne ko noonu mooy isa sakartu zalikal mabita wa zalikal amir wa subuta fitnaal dañ fitnaaloo sëriñ Tuubaa ca Ndakaaru ba sëriñ bi di ko fàttali ko suñu borom fayee ko loola moo tax mu dàkk ñaari guddi bëgg ñu ubbi ko ci kon nag mu la ko yëgal fas yéene nag ñoom tegoon liggéey bi ci seen loxo